Euh, ñooñu seet si ñu andi ci mbégte ngi kay euh, tout se passe bien donc voilà ngeen voilà comme ça ngeen caméra bi euh, comme ni ngeen koy donc 88 628 99 90 on vous attend pour vos dédicaces maintenant la rubrique média de l'Afrique ce sera pour tout à l'heure mhm. Banel Shop xam naa gars dañu Facebook bi sama ndax dañu ñëw ci ñun comment dañuy commenter en direct waaw tey moom dañuy commenter en direct ne dañu ñëw seet seen liir liir bi nga xamante ne nag dafa juddu mm-hmm. li ma gën a neex ci moom mm. dafa am ñaar mm. ndeysaan waaw non kii <laughs> bu dee mu doon tey damay rey ñaari xar yu ñuul ak ñaari bëy yi am béjjënu nag <laughs> looy ree ah da ngay ree dara dara koy d'accord donc euh, léegi nag ñu daal di jël ki nekk ci ligne bi allo waaw euh, est waaw kooku Eldam et kii mooy Eldam. moom daf maa mere nee na temps yi. non non xam nga nu fa demee nii après dañuy wax PV ñoo far. ndeysaan. non. dalal ak jàmm yow. tey kontaan bi laay mu kontaan trop trop. Ah, yaa ngi gis gars yi la franchement lii daa waaw ñu whatsapp bi ñu ñuy dugal photo yi tout ça quoi waaw. excellence. waaw di ana président di ana ko jëy naa mën ko lalion ku ma bëgg a tur daal waaye. laa liyoon laa liyoon eh ana Jeyna. Jeyna ngi noonu man laa liyoon ngi ci man. Jeyna taxawal lii. laa liyoon ngi ci man sama wet. Jeyna ngi kan laa bëgg nga jox ma egg waaw kan. jox ma sama xarit dafa Jeyna. allo. tey aca ñëwee waxee li jege micro. allo. allo xaritu xool. waaw. Jeyna yow. namm naa la. yaa dem bàyyi fi nii tey ah. mais gis nga de tey moom yaa fi manqué. waxal ñaaw. naka mu nag nawet nawet gis ngeen toog yi yëpp jàmm ah. waaw gis nga de kontaan nga. non déggoo ma ne tey groupe whatsapp ak ak um, uh, groupe whatsapp daa jeex na fi quoi ñun bañ créé ko kim famille bi aussi. waaw gis nga de gis nga de. jeex na fi loolu dafa leer xam nga mu ngi ko jaare na gars yi tey jëm ah. Eh, ñu ñooy équipe A ñee ñooy waa équipe B. ñoom bari seen seen équipe ñoom équipe B. yéen da ngeen ñàkk bay rek. ay waay. da ngeen ñàkk bay rek yow ñi base bee fi nekk di. wala nga fàtte xam nga leen bëgg. ah. yéen bu ñu waree yéen yéen yéen King FM lañuy njëkk a fuubala yéen animateurs yi ñu defal leen bagage. ay ca ñëw leen ñëw leen yow gars yi dèjà ñi fi yegg si yëpp bandage bandage nañ seen yaram bi. ñi fi ñëw ñëpp ay bandage lañ fi àndaale. allo. aw oh. kooku dem na ak jox ma jot li ma léegi nag fi mu ma defaat sama sama liggéey jënd ba du noonu fi rafet na ba nopi de neex na waaw léegi nag euh, téléphone bi voilà donc ni ngeen ko gisee non ci 88 628 99 90 donc euh, pour euh, gaay nek Sénégal alors Banel fofu ci ñana ñan ñaan fofu am foofu gendarmerie les gens meun nañ tok ku ne na na dalal len waaw waaw waaw tok nañ tok sen chaise ku ne takk kaskam ndeysaan ndeysaan bu ñi ñaan généreuse ba baaxal baax may ma ci may ma ci dana am solo dana am solo acca waaw léegi na ñu toog voilà ku nekk daal di takk kaskam koo koy sëñ bi waaw kon sëñ bi yow sëñ bi ma ah waaw sëñ bi gis naa fi taxaw <laughs> sëñ bi garde à vous la def garde rapproché la def waa noonu la rek noonu la rek noonu la noonu la acca ku toog foofu waaw mën na dem toog ci chaise boobu sëriñ bi kay mën na laa sori actuellement léegi nag ñu daal di jël euh, keneen ki nekk ci ligne bi allo waaw kooku waaw. kii de Tamsir Niang lañ koy wax. Tamsir Niang. oui maa ngi ziar di bëggee. mais ñu ngi laa bëggee bu baax mbokk bi naka waar. waaw naa ngi alhamdulilah fa la wax. lu yàlla wax tey fa la la yëfi tiim. waaw tey moom kontaan rek en fait kontaan rek laa def sama gars yi xam nga tey dañoo mobiliser wu ñëw foofu. waa gis nga ko de waaw nga. ma jël ma jël numéro bi nag teg ko ci loxo président xam nga mu bégal ma gars yëpp. ana président ana président. président kaay wax xaaral xaaral nga ñëw wax ak président xaaral. allo président. da ngeen lépp jàmm naka affaire yi. Ah, waaw seen mobilisation bi naaj na de ah. affaire yi moom bàyyi. lii am na solo trop quoi vraiment ah. amoon nañu yéen a teew mais xam nga rek job bi moo ñuy sënk benn instant yi. xam nga bëgguñu di lim di juum ku lim juum daam xam ku lim juum xam nga. non rafet na rafet na waaw di bëggee ay Adam si excellence xam nga. yéen a mi ngi ko ay Lena Lena xam nga ay euh, Amina Sow xam di bëggee gars yëpp quoi parce que team family bi dafa yaatu xam nga waa extérieur bi Kulim Dioum ay Jo Mbaye Babacar gars yëpp daal vraiment affaire bi moom nice na quoi li may conseillé gars yi la xam nga ñu gën a jàpp ànd bokk ndey bokk baay xam ne ñoo bokk même objectif bu ñu atteindre jàppalante daal yéen ma gën a xam Eldam yaa ngi si biir dégg naa la sànq xam nga ay Modou Ndiaye gars yëpp daal ñu ngi si biir ah allo dégguma ko de lu may si waaw yaa ngi koy dégg Banel dégguma woon lu may si de ah déggoo ko woon. ndeysaan léegi foofu leer na am. waaw yow moom day leer moom. ah waaye déglu woon téléphone bi. non le Messi. ah oui déglu leen ko déglu woon Messi. léegi nag xam lu may def parce que là euh, on est en train de vivre une expérience une première. ah donc les auditeurs qui se transforment en animateurs donc tey ñu dund ko au moins benn yoon. voilà si mais oui King FM yéen a ko moom yéen ñëpp ay buur ngeen at ay euh, naka la wax ay Linguère voilà donc feulé nous sommes am wa secteur A Nous dañuy demandoo ñom ñëpp feulé comme ça ñu def ben interview ku nekk voilà un message et tout ça. Mhm. Ah. donc légui nak Yacine nak ma yobul ñé ñu démé bor ba comme ça ñu installons lène et comme ça un par un nous allons parler ma voir wax ak ñoom sinon damay tek sama casque di lène jox boba day ah. allez 88 628 99 90 donc voilà le fans club pays euh, King. King FM voilà donc dañ fi jaar ñoom ñëpp nag ku ci nekk da nga ñëw rek def ko ni mu waree waaw yëf yi neex na banal yëf yi neex na ba noppi de tellement ah papa dañ ma indil cadeau la lion ndeysaan daf la nekk indil wax oh ndeysaan la lion dafa baax nag billaay wallaay elle est généreuse man yi boo ma koy def sama laa fi ngay dam daanaka waa waa la lion nga def waa jege jege waa kay aca banal bañal dimbali ko voilà aca laal yoon waaw acca acca acca léegi ndànk rek ndànk voilà léegi nag gars waa waaw acca na nga def. ça va ne. ça va noo gi noo gisee seen liir bi. ah macha allah. kontaan ngeen. macha allah. macha allah. macha allah kon kon kon tëf tëf daal. tëf tëf moom. ah Banel je suis gis na sérité bi. non <laughs> non man <laughs> ñëpp la ñun ñëpp la. xol fees na waaye bilaay xol fees na. ah ana kil nekk bi wul jooy nag yow ah, dafa gaaw a jooy nag sa salaan la moom salaan xam ngeen salaan. li salaan benn benn xob la benn garab la plante buy dund ci booru dex. yoo xam nga ku fi xam salaan ci yéen salaan ah cëm yow waa Mbour nga mimi ko def. eh waxal bu baax. ni ne tey. maa ngi fi. ça va bien. waa ci loo ne. maa ngi nii. yaa ngi noos. waaw bu yem rek. Ah. Mhm. ah. naka noo noo gisee noo gisee seen liir bi. waaw fii moom dégg jàmm macha allah. xam nga yéenay faral di woote en direct. tey ngeen dund expérience bi aussi en direct. Mhm. ngeen gis liggéey bi gis li ñuy def yëpp. donc pour que ku ci nekk rek ci yéen fa nga mënta nekk ci Sénégal mën a dégg comme nu mu la neexee. Mhm. donc parfois yéen gis ngeen da ngeen di woote allo man dégg mu ne tax ngeen coupé donc gis ngeen léegi li ñuy daj. <laughs> dëgg na de ah. da si baax. métti na ni mi quoi. métti na trop. waaw waaw waaw. waaw ñu ngi jaajëfal fii moom lépp jaar na yoon ah. lépp jaar na yoon. lépp jaar na yoon yow na da nga njaboot yow. man xamoo si dara sax. <laughs> te xoolal mu ngi ne lem nag tey te bu wootee ci téléphone toj téléphone bi. yéen a waaw te en direct mu ne lemm. timide moo tax. la damaa may ma heure man may ma heure man yow yaa timide. damaa bëri ay doom de. da nga bëri ah, léegi lii mal ma say doom. Adama moy chat Ada Junior. ana Junior eh, il était en ligne hein, sans que ñu donne ah, sur Facebook il était en ligne et hein. on eh, yow <laughs> après ci Eldam. Eldam ah. Eldam il a appelé sank ni mm-hmm. ok. Agricole a Rikel. waaye kooku ku bees la mais daf ma yaayoo nee na. ndeysaan. waaw waay waay son sonn nga. ñoom la yaay même président sama doom la de. kii de boo kii de boo ko juree màgget kii de boo ko juree màgget rek. non en tout cas bëgg nañu bëgg nañu lool waaye bëgg nañu lool. ah vraiment. si doom yi la bokk. ana excellence. nga Badel man goroom laa. dégg nga. banal mayaguma la déggoo démb ñu ne indi warugal bi lii ci la bokk de lalal lii at xeeb damay bëgg ñu ciy def at xeeb def nañ ci lii at xeeb <laughs> bëgg naa ko alors euh, bu ñu nuyoo donc euh, voilà Mimiko moo doon wax sànq sànq dégg ngeen la Lyon. Mm-hmm. alors keneen moo war a ñëw ana jigéen ñi les femmes d'abord ba na takk kaskam jox leen ba voilà mu tak casque momit comme ça mu meuna wax ak ñun. légui nak euh, Dieynaba Dieynaba li ñuy bayyi ana jenaba voilà donc juste le temps que ñu déglu benn morceau juste après euh, on revient comme euh, ça ñu daal di continuer Ngaaka Blindé bi waaw wa ma waaw bi wa d'accord léegi bàyyi ma dóor bii nii sippi bi rek ma dellu su mel ne ma waaw. <laughs> dafa nice jack melne ne disket bëgg sol gat gàtt bëgg nu rok minet bëgg greffage cheveux naturel petite tête bëgg guddi bu nek mu dem discothèque bok ci buzz bi nek internet fës de car sen ko sen web amul ben talent waaye bëgg nekk vedette bëri bëgg bëgg taram lay wuté wéccé Dakar nu door fax keroog doon défilé Miss Jongama jeeg bu jar la waay néna na du caga bëri mbaraan këram rëb ni Sandaga weddina rappeur yi ak animateur yi légui mi ngi ci mbeur yi wala 16 h 58 minutes comme nañu ko waxé won rek euh, tay à partir de 20 heures incha di ngeen dund en direct lolu nga xamante ne moy soirée euh, Papa Diouf ba foofa ca Paris tay nak euh, li ñu naan la diaspora dañu déplacer wu massivement Baye Cheikh néna mo moo yor caabi Ndakaaru tëj ko dem waaye nak Baye Cheikh nak tëj nako way ibina Paris Baye Cheikh na nga def alors ba maa ngi sant bu maa ngi sant bu wér wér wér maa ngi lay dégg maa ngi laa dégg bu baax a baax a baax a baax suma xarit. waaw mais mais mais mais kontaan maa ngi lay déggee di déggee auditeurs yu King FM euh, première radio digitale du Sénégal alors comme ni ñu leen ko déggee woon Excidex. waaw tey waaw King FM dafa déplacé wu. ñëw hmm. fii ci euh, Paris. waaw euh, pour àndandoo ak Pape hmm. ak génération. dugg dugg dugg France ak sénégalais yi nga xam que ce soit réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, euh, mais dañu koy. allo Baye Cheikh allo Baye Cheikh bu euh, fekkee yaa ngi may dégg def naa nga déplacé wu <laughs> Baye Cheikh bu fekkee yaa ngi may dégg nga déplacé wu waaw non fa fa day dagg réseau bi day dagg. réseau bi day xaw waaye maa ngi lay maa lay dégg mais dafay dagg quoi boy wax xam naa nak nag bëgg na waaw bo boo déplacé. actuellement ñu ngi ci salle bi di def euh, balance ak Pape waaw euh, actuellement ci waaj a dugal ay morceau euh, tey li nga xam en tout cas li ñëw ñëpp boo tuddee King FM King FM donc ñun dañoo foogoon ni King FM Sénégal la yem mais en tout cas bitim réew alors donc pap Cheikh euh, xam né da na la jëlat euh, fii leeg ay simili ma may touti rek nga déplacer wu parce que dégg déggante bi euh, amna na ci jot a for tuuti rek ci li nga wax li moy li nar a xew tey ci guddi gi léegi nag dama lay ak touti rek nga noppalu may ma encore ci répétition bi tout à l'heure fekk nak Sénégal yi nga xamante ne tey ñoo préparé guddi googu ñu dëgmal ko ñaar dafa fas yéene am tay ndax Paris day génn Paris buy génn xam nga dañu naan banlieue loin moy ñu dëkk ca kii am nak ñu naan périphérie ñoo ñëp dañu déplacé wu tey parce que Pape Diouf bi mu quitter Dakar néna naa la dafa yobalé euh, Sénégal les euh, couleurs euh, de la nation bi ci gën encore li ñu mëna japp tay ci guddi gi mooy ko en danañ ko am en direct King Show à chaque fois bu ñu génnee rek dañ leen koy télé parce que tamit nak guddi gi dafa nar ala daw mais Paris. ak Dakar Njaay ndeysaan xamna na dara umputu leen ndax baraji bu juddoo rek defe na ci lamp yi lu banel son ndeysaan gars yi dañu kaa gis fu mu mënti ne yéen a ngi nii di gis banel yi mu def waa létt yi nga def banel lu mu tudd. ay mèche la. ah yi mooy mèche. yi mooy mèche waaw. mais dafa dijji dafa dijji. waaw man xam nga man dama bëgg tout le temps di am sama touche personnelle. ma def li ma mënti def gis naa ñaari xale yu ko defagum. exactement waaw dañu ko posté ba pare bindi pour dane pour banel ma ne. kii du ñu eh. ko woon balaa moo naaw. <laughs> yi dijji yi maa ko moom. waaw ah yi dijji yaa ko moom. yi rafet na xam naa ne nag xale Paris buñ ko gisee mom xamna né fofu euh foofu Doro Fell dana dana dana euh, dana dana toj tay parce que tey Pape Diouf euh, non seulement mhm. euh, dafa pare pour woyal Sénégal mhm. mais Sénégal yi ñoom ñoo laaj mu ñëw mom ñoonu ko pap Diouf dañu la soxla mhm. parce que c'est à la demande générale donc danañ ko am en direct danañ am coulisses en direct danañ am aussi les interviews en direct danañ am Pape Diouf en direct dinañ am artistes yi nga xamante and na ci presse prince a def liggéey bu rafet Bobu, mhm. fas rek euh, ndeysaan bégal mhm. euh, les sénégalais de la diaspora fofu mhm. parce que nag bu une soirée à Paris du yem ci Paris déedéet Italie day dag ñëw Espagne déplacé wu ñu ñëw dañoo ñëw dañoo dawal ndeysaan auto yi la ñoo jël <laughs> waaw ko yalla may camion da ngay jël sa camion rek yow du kay nit ba mu fees ñoo xëpp Paris yaa ngi dégg mm-hmm. Italie ñëw nañu waa Angleterre daw si neen jaar su euh, le tunnel de la Manche mm-hmm. yaa ngi dégg donc fi mu toll ni gaa yi ngi li ñu naan euh, gaar yi ngi commencé nag di fees <laughs> waaw Sénégal yi ngi commencé génn nag lu golo xam boote doonam tey lañ koy xam gis kenn ku faaru tey la tey de tey ku bëgg kenn ku bëgg niroog bareel eh. may la faar boo xam ne day des parfois ngi si xeetu kanam yoo xamante ne mën na ñuy géej Ndakaaru <laughs> yenn saa ngis kenn ku ci def ca mu càmmoñe be mu càmmoñ man ndeysaan du dem du dem ndax galas gee bari ci moom fa mu ñëw naaj bi daal di koy wàññi tuuti mu seet ah dëgg la di dafay calciner yaram yi mooy mooy jàpp. ndeysaan tey daal vingt heures mm. yëf yi dana neex mm. alors Dieynaba Dieynaba na nga def. maa ngi fi Dieynaba nag ki ngeen di dégg nii gars yi donc gars yi ñu déglu nii donc Dieynaba moom nak euh, moom lay woyé pànk bi bu duggee rek ma ne pànk bi dugg na. <laughs> ma ne pànk baa ngoog mais sama xarit la oh je l'adore parce que dafa baax ah vraiment bokk na ci njëkk woote moom it. Euh, ci rajo bi bi mu juddoo euh, tey nag Dieynaba naka nga gisee sa doom sa bébé sa liir bi nga bi nga seet si tey. kontaan ci rek macha allah. ci rajo bi ba pare ñun dañ ciy gis suñu bopp. ndeysaan c'est la radio de la jeunesse machallah waouh. waaw waaw. ba pare kontaan nañ ci yéen ci accueil bu chaleureux bi kontaan nañ dal en tout cas. on mais yéen a koy lol. da ngeen dafa tombé. Pape euh, Pape Cheikh Dem ma nga fofu parce que daf leen dañu bëgg rek ngeen dund soirée bi en direct donc moo taxoon ñu néwon bon il faut mu dem mhm. donc démb mu dem en urgence pour représenter Fofu Radio King FM pour que ngeen mën am soirée bi tay en direct ak mhm. interview yi ak ñafa fa ña donc yéen gis ngeen li ngeen ñuy exiger ci qualité dafa bari <laughs> parfois da ngeen ñu exiger qualité wuy ex ni ñu bëgg nii mais yéen a ñuy bëgg a rey <laughs> ndax yéen bëggatu leen soirée raw leen mm. yéen bëggatu leen lu xew ndakaaru ump leen da ngeen bëgg léegi di jàkkaarloo ñëpp donc on est obligé daawda nag boobu ngeen rey ki romb noonu daawda boobu rek ngeen rey ne lépp luy direct moom la gis ngeen ko ndeysaan mu ngi jaabanti dugg suufu taal bi tout ça tout ça c'est pour vous plaisir alors yow nag tey am na ci personnellement kenn koo xam ne bi ngay ñëw fii tàggu nga ko kan la e koo tàggu amoon kenn ko wax naka maa ngi dem kii nga sama waa kër laa tàggu waaw nuñ tudd amuñ tur maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp sama grande sœur Hadi waaw maam Diarra mhm. Marème mhm. Ismaïla mhm. maam maman aussi ndeysaan naka la tudd ndey ndey naka ndeysaan i yow oh, ko dudu sa yaay xam naa yow sa yaay nga ah, <laughs> niru nag sama nga nag jigéen ñi xamul tax dag ñu mën a seen papa rek ñun dañ ñaaw niru sa yaay moo gën niru sa papa. dëgg la de ay boo nee papa mu mel ni papa yi banel rëcc il est beau. voilà donc euh, alors donc euh, kan ma euh, président mooy tëj après léegi ñu jox ko kan ka nga dendal noonu. leena gasama joxal leena ma gasama gësëm. leena ngoog man leena xam nga leena la leena leen laa koy njëkk laaj takkal say casque leena leena 7 heures du matin lay dàmbalee Daouda day toog def générique rek leena mun connecté. <laughs> leena ngi nee de léena nga léena na nga def jegel micro bi voilà jegel micro bi voilà très bien léena nga dugaatal dugaatal mën ngaa dugg jegel bu ragal fii dara du matte tout c'est du chocolat tout est sucré sinon salé voilà waaw léena gasa mën na nga def tey nag yaa ngi wax ci micro xam nga micro kan ngay wax noonu ma xool ndax ma xool ndax yaa ngi suivre aca ah, ah. ma xool ni ko kan yaa waxe non micro <laughs> voilà. <laughs> yaa waxe ci micro ni micro Nafisa ngay wax ngay waxe nonou mais yow da nga bëgg radio bi da nga bëgg euh, nga FM ba nga xamantene café woo ko fajar ngay yeewu. Mhm. mais ñu and ak journée bi yépp vraiment euh, tay nak nga gisee sa bébé bi sa liir bi ndax ni nga ko doon séntoon nonou la. Mhm, non la ak liir bi baxna nice na lepp rafet na. ndeysaan bi ngay bi ngay ñëw ko tàggoo. sama yaay ak sama grand frère. nuñ tudd amuñ tur. sama yaay jaara ja. eh japulo. ah cëm. ak sama grand frère Mamadou Gassama. Mamadou Gassama. ak sama grande sœur Ndeye Gassama. lee Ndeye Gassama eh yéen kii dafa di saan. ah yaru ndaw dafa dafa yaru. oh am nga jëkkër. non non ndeysaan gaa yaa ngi nii de baru bariwuñ bariwuñ bariwuñ te baax nañu. te waaw fii moom tout dagaleen leen lépp fii <laughs> xalifa bi dagaleen dagaleen leen lépp waaye. ah léegi ah dafa yaru ah dafa yaru comme yow. waaw <laughs> yow mii yow yaa yaru yow yaa raw <laughs> moo raw Mickey de. cëm léegi nag daal yow baa koy daaneel. kan moom animateur lay oh, doon moom dafa ñëw toog xëcc na kër grand kon aca waxal. mais sant waar. mais siyaara. mais kookoy kan. waaw kan. kii kan. man Arona Arona Arona from Maris. ki moy Arona ni non Maris ngi la non Arona. <laughs> ah <laughs> mais mais voilà ni ngeen gissé vraiment seen radio ngeen ñeu visiter vraiment merci. Mhm. Euh, tay euh, lan ngay wax ñi ngay ñi nga tay koñ. at ñi nga bëgg nañ dugg. Mhm. Euh, ci li nga moy fans club King FM. waaw waaw affaire bi franchement rafet jaajëf waaw ñu ci doon séntu presque gis nañ ko ko mm-hmm. waaw te yaakaar naa lii mooy àdduna ko waaw waaw xam nga séntoon nañ mu gën a kii mais peut-être yàlla ni la ko dogalee. waaw waaw non franchement kontaan nañ ci accueil bi trop. te te ngeen am nag tey lu raar. waaw directeur bi dugg ci parce que directeur bi du fi faral. mais da nga jékki si yàgg rek man directeur mu gis ko mu légère ndag def maa yom dugg si def samedi ma ne yéen daam ngeen sa tombé ngeen ci donc ngeen wax ko seen doléance moom it dégg ko lim leen wax nee na allah euh, dina ci taxaw à dès lundi mm-hmm. euh, boo leen jaaree ci Daouda mm-hmm. lépp dinañ ci taxaw lépp loo leen bëgg ci rajo bi incha allah daanu ci taxaw mm-hmm. loolu moom si ak yi mais euh, vraiment ma bàyyi la nga big up say waa ko ak say xarit incha allah maa ngi big up sama waa ku ci mel ni sama yaay am satuli waaw di ko sama mais yéen groupe bi bëri na ay xalpulaar mine de rien gu groupe bi bëri na hal pulaar fii alpulaar yi bëri na bëri na ah ñoo fi ëpp ñoo fi ëpp de alpulaar yi daal bëri na ñu waaw di digëb sama waa gaale di ko sama ñoom grand frère mm. sama petit frère yeeg sama doomu rakk bi xam nga di leen wax ne waaw ñu ñaan rek peut être affaire yi dina baax incha allah bu ragal dara jaajëf mais yow après am lu ñu war a coaché non dañuy dañuy coaché yow bu ragal dara yow <laughs> jaajëf man kii laay wër maa ko fa moom laay wër waay moom laay wër man moom laay wër waay alors aca euh, ana le Messi

waaw waaw. ñu ngi lay ziar waay. waaw fii la ëppee yi bëgg nañ xam yaay kan. mais sa micro sa sa casque yi ñëwul de. waaw léegi banel yokkal ko foofu casque moom. voilà merci voilà baax na léegi yaa ngi may dégg Modji ah. waaw Modji waaw eh, Modji foofu man sama yoon newu ci de. <laughs> banel la foofu kabiru ka banel la. banel la banel mooy yor quoi. mooy yorul foofu. non pas du tout parce que ñu fi doogoon ñëpp <laughs> waxuñu dara de. ah waxuñu dara noppam yaa problème. non gars yi seen noppi baaxul de. am <laughs> problème quoi. dalal ak jàmm. waaw mais yéen dal leen ak jàmm yéen tamit. jërëjëf waay mais kontaan nañ trop nag ci accueil bi quoi parce que nice na trop. jërëjëf xam nga bëgg bëgg dara ba ñooñu yëg la tey loolu dafa neex. Mhm. waaw mais lii nii yëg-yëg la tamit. Mhm. ndeysaan ndeysaan imagine tey ngeen ñëw ubbil ñu bunt yi. Mhm. war ñu kër gi. xam nga kon dañuy gën a mën a am dañuy gën a a liggéey bu demee. dañuy gën a jàppaat. incha allah parce que lii lii ku la yëg rek moo la koy defal. Mm-hmm. nga nekk si dara di ko di ko di ko bégee. Mm-hmm. xam nga moom mu am kii pour accueillir la nga ñëw ci kër gi. mais yéen la nag non yéen la seen alal la yéen a ko moom ñun dañu fi teg pour yéen. mais loolu am na dañu Youssou Youssou Ndour président Youssou Ndour dafa créé rajo. kooku nag man moom kooku moom dama judd rek bëgg ko. bi ma nekkee liir laa ko bëgg quoi. ndeysaan bëri nga ci moom war na yàlla barki Sirina Mohamed sama télé TFM barki alxuraan du xanaa mas maa ngi woowee TFM laay moom laa doon déglu mais léegi King daa ñëw ko ci man. ndeysaan lépp benn la rek lépp benn la rek mais benn la use ah, dafa neex quoi. waaw waaw King da ngay sentir sa bopp dafa neex mm. trop. mais dañ leen di ñaanal suñu borom xam nga. Mm. affaire yi gën a dem ci kanam. amiin amiin tamit ànd bi dafa neex. parce que fii jàmm rek moo fi am. yàlla gën ñu boole ñu gën a doon benn. li ñuy sumb nii mu gën a xam nga avancé ñu gën a nekk benn daal. incha allah parce que kër gi boo toogee duggoo ci whatsapp bi sax sax sa yaram lu nekk. dëgg la dafa neex trop parce que jaama fi nekk. dëgg la dëgg la kontaan nañ trop. kontaan si ñëpp. jërëjëf jërëjëf booy Medina la nag de. booy Medina bi fanaan rue ñaata rue ñaata. rue 21 angle 22. mais am na gaa yi la fay déglu nuñ tudd limal ma xool. waaye gaa yi ay uude lañ doonoo bëri ñooñ duñ jeex. <laughs> jërëjëf <laughs> jërëjëf. jaajëf waay donc euh, voilà euh, Medina Medina noonu ah am na léegi nag. Euh, kooku acca eh, kooku koy Arona. Adam the boss Adam kooku koy the boss. Ah. kooku koy yow eh. the boss the boss Fulay Jaay Dakar waaw. Adama ñu ngi lay ziar. mën nga yëkkati micro mu gën a yéeg de. non boo t'inquiète pas mën na jug ba. <laughs> <laughs> waaw waaw maa ngi nii de Adam Zop boos Seeri Ruda comme gars yi nañ koy. waaw man Seeri Ruda bi laa bëgg a xam. goos man daal sama yëf la. kon naa yaa ko maa rek barkeeloo kon baax na kon daal dagan na ay ñom président diko ko man quoi mais mënuñ ci dara quoi mënuñ ci dara ah, parce que gis naa momit bu duggee yow daal yow daal lay wax yow it say wax lay wax non non la fa démé sax <laughs> mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan ah ci euh, visite bi ngeen ñëw visiter euh, seen radio ah naka ngeug naka ko gisee yow mm-hmm. euh, ah, quels sont tes sentiments ah, comme l'a si bien dit sama gars rek vraiment mm-hmm. ñëw nañ ngeen accueillir ñu avec la cœur ouverte mm-hmm. euh ça nous donne comme ça euh daf ñoo yokk motivation quoi puisque comme nañ ko waxee rek hmm. yàlla dafa def groupe bi ñu fi nekk ñëpp ay borom ku nekk yaa ngi ciy yëngu ci dara ko hmm. ñoo xam ne dañuy taxawaalu wala wala wala dara hmm. que ku ci nekk jigéen li ma ci gën a neex man que muy jigéen muy góor ñëpp am nañ ci luñ jàpp ndeysaan euh, yaakaaruñ ci lii taxawaalu wala yooyu noonu tax ñoo jóg ku ci nekk day dóor waar daal am lu mu jàpp muy jigéen que ce soit jigéen muy góor euh, ñëpp am nañ ci luñ jàpp buñu ñu ñep dañuy liggéey. macha allah ah, macha allah loolu loolu moo ma ci gëna neex. ndeysaan si jeune yu inconscient ya ah. parce que dama leen di suivre sur WhatsApp. ci mm-hmm. groupe bi dama ci bokk. waaw et parfois damay assi damay lire thème yu ñuy aborder par jour. waaw dañu may dañu may thème. parfois damay cabaxaat parfois ma tok di leen xol waaw non parfois. tu vois ma leen dama leen di suivre quoi de près mais. indi na fa yu garaaw sax. kan mom de ah? ah. mooy banel sop kay leen de. émission impossible la leen di jox. <laughs> day dugg def lem rek ji ko melentaan la yor danaan tekk mais group bi daal c'est c'est différent ak yeneen groupe yi puisque saa ñu duggee am na lu ñuy wax euh, heure bu euh, heure bu ci nekk daal waaw am na heure déconné mais lu ci ëpp gars yi dañ dañuy teg ay projet yu yu am njëriñ waaw ah, yaakaar nañ koy ànd ak Youssou Ndour ak gis ko ni mu mel tamit noonu nga war a mën a mel quoi. Ah, absolument da ngay am vision. Mm-hmm. Euh, te ñun gis naa ne gars yi ay ay visionnaire lañ que ce soit prési ak ñi ko wër ñëpp. Mm-hmm. ñi ngi teg yoo xam ne bu génnee franchement dinañ ne fans club yi daan am c'est différent ak bi bi bi am nii nii. puisque ñëwuñ rek pour apporter suñ tous comme ça yuuxu tàccu mais dañoo bëgg a participer sur le développement de notre pays en pensant par King FM yëkkati ko ci kaw ci kanam ba nga gars yëpp xam nañ ne rajo bi. Euh, am na lu apporté ay euh, fansam tamit am nañ apporté au niveau du Sénégal loolu moo ñu tax a jóg te. Euh, jaajëf bi ñu ñëwee fii tamit kontaan nañ quoi kontaan nañ puisque puisque ni ngeen ñu accueillir. waaw tamit joxa dolliwaat nañu jom. Mhm. tax na bu ñu demaatee bu ñu doon def benn di dox. Mhm. benn dinañ yokk suñuy tànk te. inshallah du ngeen du ngeen rus quoi te le fait que ñu nekk fan ci King FM gëm na ne ci kaw ci kanam fu ngeen ñu gis fierté lay doon ci yeen inshallah inshallah, inshallah. law ba faaw rek law ba faaw rek law ba faaw ba ñu ko bay ray bu defé yi rek may dé ñu ko dal ngi di toj fi waaw ah, di bégam ñep nak waaw acca di di big up sama sama yef quoi xam nga moom mooy waaw waaw sa alal <laughs> sa alal kenn lu ko di di bégam waa maris yëpp xam nga waaw euh exactement cité soleil ñep cité soleil qui me reconnaîtront à travers King FM quoi ngi leen di bu wér a wér a wér jërëjëf teg nañ mais mais kii dafa maa yóbbante woon quoi Amassi Amassi lu groupe bi di jooy quoi nee na Banel du yëfu excellence moom yëfam la quoi <laughs> mais <laughs> mais li jaaxal mais à chaque fois li may kaas nag ba tey maa koy kaas waxal gars yi yeneen yi ñuy woote quoi ñuy woote. waaw yeneen gars yi wax leen ñuy woote quoi. affaire bi du fii rek quoi dañuy woote. di jàll en direct. ok d' accord. allez jërëjëf allez. excellence foog nga wax tey. waaw ana ana ana ana excellence bu leen may lu ñu wax mi ngi nii sànq ba léegi. Ah, presque président mooy tëj président moom mooy tëj ana excellence. alors euh, voilà donc le temps nous met... Euh, alors nous fàttali encore à partir de 20h nous allons vivre euh, en direct le concert de Pape Diouf. à à à ay doomu ndayam Paris hein, donc. Eiffel mm. mm. cette soirée ce sera bien sûr une soirée inoubliable Bon on ne tey kenn ku nekk ci détail bu amoul amul détail bu leen ciy comme en direct Pape Cheikh Douguna Sank sànq gis ngeen ko mi ngi ci salle bi gars yi commencé nañu balancer à répétition yi donc euh, à partir de 20h de Nélène wax di ngeen vivre arrivée des Sénégalais de la diaspora et éventuellement aussi parce que vas plus aussi euh, dana bari torop torop torop aussi tamit bu ñu allez donc nous avons di jël nous euh, nga maintenu mon moi mooy moi. Ah, excellence. ah kookoy excellence excellence ñoo ngi laa ziar ah, excellence yow ah. defe naa ne rajo bi suñ ko Hein? excellence la nous koy tuddee. <laughs> Wallahi. toujours excellent toujours présent. toujours excellent moom bu duggee rek. dama naan excellence ñëw na <laughs> depuis baraji bu juddoo ba léegi ñu ngi lay dalal copain. waaw di sant bu baax xam nga di leen gërëm xam nga di am trop. merci di quoi. waaw content trop trop wallahi ah dafa quoi c'est la famille. waaw xam yi dañuy kaf foore xam nga. Mm-hmm. xam nga gars yi ay borom baax fi nekk quoi xam nga. mais yéen a baax. non wallaay yéen a baax yéen a baax et puis et puis li ngeen xamul. waaw moom mooy euh, incha allah seen soirée at président Youssou Ndour euh, moom ci boppam euh, moo ne après weeru koor bi incha allah dina jàpp date. buñ ko jàppee ñun dinañ leen woo ngeen ñëw. ñu toog ak animateurs yëpp. ñu waxtaan ku ci nekk ñu xool liggéey bu ñu lay jox parce que seen soirée la lay doon en même temps parce que rajo bu nee soirée King FM du ñun animateurs yi parce que ñun dañuy liggéey bés boobu mais yéen yéen a ko moom mhm. donc ñu xool aussi nu ñu koy organiser mhm. ba nga xamante ne incha allah guddi googu moom saa mhm. bu cuunee ci yéen la <laughs> bu ala daw mee ci yéen la. non loolu dinañ dafa war a ala daw loolu moom xam nga day neex quoi loolu xam nga. Ah. waaw dinañ loolu xam nga ñu bokk ci genre événement yooyu xam nga. incha allah loo xam ne King FM yooyu. Mhm. xam nga dinañu neex quoi ñu ciy bokk di xam nga di ko partager ak yéen. Mhm. xam nga parce allah comme comme lay wax rek xam nga di sant gaa yëpp daal di gërëm gaa yëpp. xam nga jërëjëf jërëjëf waaw wax bi mënuñu ko bu baax. waaw <laughs> rek mat rek jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. ok Banel donc ku ci tegu. kan kan day dugal le Messi. ana moom ana le Messi yow daal si Messi dafa bëgg la. Eh, eh, non am na ku des am na sama sama waay. bul yàq waay copain bu ma yàqal waay. ma yàqal waay. da ngaa làkk di. eh kooku <laughs> ah mais comme Matar Carlo eh kii moy Matar Carlo <laughs> mais copain waaw togo ce siège xëccal ce micro xëccal ce micro waaw eh, moi moi c'est Alassane au lieu de Matar Carlo ah qui c'est Alassane Alassane Sec, ouais super Ça doomu mon bail, Alassane Wow. maa ngi de communication d'ailleurs Amona, naa benn yóbbante si yow ex je crois que Mimi ko wax na la donc après on va voir entre moi et yow

aussi am nañ benn président bo xamné il est dynamique. Euh, sama gars aussi bureau bi ils sont dynamiques. donc euh, mm. mm. tek nañ ay projet voilà euh, peut-être. dans ci waxtan ak dinañ ci waxtan ak président après. c'est ça c'est ça vous allez voir que ni am ngeen ginnaaw public bo xamné euh voilà paré nañ pour def lepp ngir affaire bi jëm karam quoi en mm-hmm, quelque mm-hmm. sorte. incha allah incha allah donc euh, naa kontaan naa bu baax baax a baax a baax vraiment. yow yow yow yaa ngi waxee ci micro Nafisa xam naa Nafisa bu ñëwee naa. waaw waaw Nafisa donc euh, de maa ngi lay nuyu bu baax ah. Ah, euh, di nuyu suñu waa kër bu baax waa waay foofu laa jógee. Géejawaay ah. waaw waaw waa sànni ci waa tur. waaw bon j'en profite rek sama ñaari sama ñetti xarit laay laay laay bégee. tey nga dee du xam ngeen yéen ne fii ku fi lim di nga ñëwaat. <laughs> ñoom il faut ma comprendre étant donné que temps bi dañuy xooj ak genre mel noonu. ayca waaw bon maa ngi bégg benn copain Brag la tudd Brag Mbaye. waaw ak euh, Demba Diallo. ok ak Moussa. waaw di profiter tamit di. bégee eh, bu fi wax turu jigéen de. non non ñàkk ex. ex il faut ma turu jigéen. ayca parce que su ma ko waxul bon su ma demee damay indi problème. waaw ah, ayca donc de ce naa lépp teg ko si moom mu distribué ma si yeneen xale jigéen yi. <laughs> yàlla. ok nañ bu baax. Diarra yaa ngi may wooku rek nu mu defee nii ngeen. ah Diarra moom it ah on s'est jamais <laughs> waaw donc baal ma may ko xam naa loolu bëgg. waaw ndeysaan ah, jërëjëf moom it borom baax di big up sama gars moo ñi fi ñëw jëru leen di big damay profité tamit ñi nga xam ne ñi ngi euh, à l' extérieur di ñu suivre peut-être bëgg nañ xam nga bëggoon nañ partager ak ñun mais yàlla dogalu ko. waaw ndeysaan. donc sur ce ñu si profité rek di leen wax big up di leen ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf di leen wax ne ñu jàpp si crew bi parce que daal c'est c'est intéressant te bu bu ñu naan ko AKA Seck dollar. waaw Seck Seck Riis ku ci des. Matar Matar Carlo. ay eh, Matar Carlo mais Matar yow moom Carlo.

waaw mais damay nuyoo di bëggee sama gars yi comme ni ko gars yi waxee kontaan nañ ci ak bi ni ngeen ñu dalale gis nga nag casque yi ah, boo ko takkul bu baax.

waaw maa ngi lay dégg. voilà alors maa ngi maa ngi lay bëggee sànq si bëri tamit ci wax yi dañu commencé balance euh, mënu ma woon dégg et puis ci salle bu bi nga xamante ni foofu la euh, Pape Diouf di amalee soirée ci kanam donc actuellement dix neuf heures moo jot si euh, moo jot si Paris mais du parce que artiste bëri ñëw pour dooleel ko ku mel ni yeneen daanaan yoo

Seydou. ah ñu ngi sant yàlla bu wér nam naa la de namm naa la de Ndiolé. maa tey Séné tey sénégalais yëpp ñi lay déglu nekk ci bitim réew nii ne Espagne ñi nekk Amérique ku ci nekk dafa bëgg a xam tey lan nga lan ngay lan lan ngay préparé ci guddi gi tey. non tey dañuy gis beneen jamono parce que fan si yaa ngi taxaw fan si yaa ngi taxaw. ndeysaan fan si yang ngi taxaw jamaa noir beneen jole France yëpp ñu ngi fàq fekk sama sama hôtel man jamaa bi daal ngi daal ngi kon daal bu dara sedd tay guddi gi daal tay bu dara sedd dañ ko len ko sirap rek ba pare waaw tele bi ko rek waaw xam ci bi wow. na yóbbu na xel yu bari na. <laughs> li ko Baye Cheikh di waxee Baye seex nee na euh, ku ku ku ne ku ne King FM rek foog nga ne ci tëf tëf yal na yàlla laf cat. non dama ne na bàyyi fi ci ci ci yóbbu na fa yóbbu na wallaay wallaay wallaay yóbbu na xelu yóbbu na seen xel ak seen fit. ndax ñu kenn xoolal ren ca Paris fan la. yàlla na yàlla lam jërëjëf xam naa ne tey moom incha allah waaw ma bàyyi la nga. dëkk baa ngi Cees tubarkàlla macha allah tey ngi wàcc fan si yaa ngi nii xale yaa ngi seen kóol yu baax di yëkkati seen xam naa ne nag guddi gi. waaw xam na nag lu may def bëggoon naa nag nga commencé baay seex laa koy wax mu commencé dugg ay dugal ay snap snap yaa ngi commencé yegg waaye nag lu yegg si rek ñun daal laa ilaha illallah dëkk baa ngi toj na leen yàlla lafal amin amin amin waaw wooma waaw seetal loolu <laughs> seetal loolu loolu ëpp waaye lii fan waaye lii fan laa amee. waaye maa ngi suti rajo yi nag waaye. léegi bu njëkkal yóbbu yóbbu ko allah macha rajo bee joŋe. damaa bëgg bés ma yi daal. <laughs> amin amin amin amin amin amin amin xam naa ne nag euh, jërëjëf ñoo la gën a kontaan walaay walaay ñoo la gën a ñoo gën a kontaan barki biig rek ñoo nekkoon doon Sorano la nuit de l'or nga def macha allah def bu na weñ waaw Baye Cheikh Exidex alors Exidex fi mu ne xoolal pare ngi yëngu léegi dafa la bi ñu ñëwee nag dañ nday ndaag nday ndaag tamit mu ngi jàpp ci mu ngi jàpp ci liggéey bi moom tamit euh, il faut que ñu bàyyi bu suñu FM parce que moom laay dafa dafa doon ci nag kanam parce que soirée bi dinañ ko déglu en direct dinañ ko seetaan ci suñu page Facebook en Facebook live mais tamit coulisse yu événement bi yëpp dinañ ko am ci compte Snapchat euh, bu euh, kii FM waaw xam naa ne nag Sénégal yi bëgg nañu Sénégal yi actuellement dañu bëgg a gis Baye Cheikh ndax xam nga li nga def dafa dangereux da nga tëj caabi ndakaaru yóbbu caabi ji ba mag ndakaaru nag. voilà loolu da def yóbbu nga caabi ji de. comme maa yore caabi ndakaaru maa koy la cat ak Brigitte Jabaram wóolu nañ loolu waaye. waaw waaw cëm. man daal fi mu ne nii nii nii def ba Jole wax ko léegi man looloo ma xaw a jaaxal léegi nag naag hmm. laa lay jox bu ko moom itam mu wax ma naka la àndee ak King FM fii ci Paris. waaw kay donc ñu daal di dalal Ndack euh, euh, ñu daal di dalal tamit Ndack xam ngeen ko moom it dafa bokk ci signaar yi macha allah ba mu demee Paris li mu njëkk a def mooy xaaral ma daal di waaw Ndack. namu naa mais Sénégal lay bëggee xam nga tey guddi gi dafa nar a ala daw me ndaxte euh, dañu gis ba ngeen. ba ngeen àggee ba léegi. amu leen ban image boo leen bàyyi ginnaaw yéen a ngi yónni image ñu ngi koy jot di ko diffuser tey nag ma bëgg xam ndaak comme da nga bëgg yow les sénégalais de la jaspora guddi gi sa guddi la tey naka la nag waa naka ngeen ko dundee. Euh, waaw xam nga xam nga sénégalais dañoo ñëw bëgg li nga xamante ne mooy King FM parce que ci Facebook bi bàyyi bu ñuy liggéeyee ba sonn rek dañuy bëggee euh, ubbi seen Facebook di déglu li nga xamante ne mooy King FM parce que xam nga ne rajo digital dafa nekk première. Mm-hmm. ngeen di liggéey liggéey bu am solo. léegi Pape Cheikh nag moom xam nga tamit he is a king he is a big king mu ñëw nag gars yi ubbi autoroute à péage bi oto demul oto dikkul ñu naan waa king ñoo ñëw Macron woote ni daal di ubbi affaire yi lan nga tapis rouge diggante Orly ba ba fi nga xamante ne mooy Dog Ethel na Pape Diouf tey dafay tëgg. te tey te te te nag naag te te day. waa King FM ñëw pour une première et loolu je crois que vraiment c'est extraordinaire bu njëkk ba télévision moo daan ñëw Matango di Pape. waaw ah, léegi nag xam nga xam nga ndax tey euh, yow dama bëgg ngay valider sañse yi ndax sénégalais yi tey ci guddi dañu fas yéene euh, vraiment sañse tey moom xam naa ne bul bàyyi kenn koo gis rek yow snabal rek yónnee interviewé rek yónnee tey moom ñook yow ba guddi gi jeex. non maa ñoom ba guddi xam nga maa ngi fi nag loo xamante ne Euh, moo tax ma ñëw na lijjanti waale euh, sama liggéey sama yëfu bopp ak sama doom moo tax sama gën a sori waaye kontaan nga parce que ay wax sama ma leen ba soo saaree tollee rajo bi sori da ngeen ñoom ci affaire yi ñu doon kon nag bu nekkoon ngir ay nit ñeen dañuy naan mais ñi ñoo jox dara ma rey wallaay xamoon naa di ko ci ñambaas kenn mënu laa libéré ndax en daal guddi gi sol <laughs> en tout cas daal dénk nañ. maa ngi dem maa ngi maa ngi jóge dootal nag dem ah, def def sant bu baax nag tey. waaw yónnee yow yónnee yónnee ñu rek. Hmm. waaw xam naa gis naa veste bu ñuul bi ñu may at casquette bi def benn o waaw bu échancré ndànk ci biir rek ah waay waay yàlla na xel dee waay. waaw yow da nga xam yow da nga xam naat da nga xam naat yow da nga xam naat def na casquette am def oom bu baax ak jinam bu baax. maalox loolu euh, léegi Exidex. waaw comme tey euh, auditeurs yu King FM dañoo bëgg ñu dund euh, en direct euh, avant soirée pendant soirée et après soirée. waaw. li nga daa ko wax léegi bu njëkk ko événement yi bu amee bitim réew télé moo daan ñëw. dëgg la mais événement rajo aussi ak. sama xarita sama xarita yàgg nañu de mooy borom fecc bu siiw lisi bi fecc bu siiw lisi bi mooy borom fecc bu siiw bi Ousmane Mbaye bës bi ci costume yi gis nga gis nga depuis que King FM ñëw Paris pour àndandoo ak Pape Diouf ak génération conscience Ousmane yëpp dara ñëpp King FM except ak daa woote dina ko Sénégal moo fi ñëw pour ànd ak parti ba génération confiante léegi Ousmane Mbaye Beuz itam il faut moom it mu sànni ci ñaari baat euh, balaa ma leen di jox avant pour euh, parti ak balance itam euh, mm-hmm. mën naa waxtaan nga xamante ni ñoom lay romb fii ci nga xame ni foofu la mm-hmm. King FM ñëw soirée Pape Diop FL alors Pape waaw bu ñu mënee bu bu mhm. euh, moo nekk ci antenne bi te defe def na lu rëy tey. allo. allo. c'est mon frère. mais. mais namm nañ la Sénégal namm nañu la. Afrique namm na la mais xam naa ne tey nga tey tey la tey la Doka Fall di gan. waa me déplacer où tout tuuti comme ça en gamme réseau da ngay jéem déplacer déplacé wow rek waaw. Mbaye Buzz Allô, Mbaye Buzz Allô, Mbaye Mbaye Buzz Mbaye Buzz il faut nga déplacer wu tout rek bu fekkee yaa que may dégg waaw Mbaye Buzz ma ne xam naa ne euh, pour boo mënoon déplacé wu tuuti rek ndax ñu mën a déggante ne euh, fi nga nekk euh, dafa génn da nga nekk hors zone de couverture donc boo leen mënee xaw a déplacé wu tuuti rek voilà taxaw ci ci mbedd mi rek comme ça ñun ñu mën a ñu mën a dégg ñu mën leen dégg bu baax s'il le faut on vous rappelle dans 5 minutes wala on vous reprend dans 5 minutes ñu jël leen dans 5 minutes voilà donc yow yow yow yow yow je te reprends dans 5 minutes voilà moom xam nga da jàpp si tur bi da ngay doole. waaw. Wil Baye Cheikh. waaw acca. Exidex. waaw Exidex. ndax rajo bi def ay ansam rajo bi def ans. rajo bee def ans. <laughs> et puis et puis rajo bi dafa def dafa def tuuti mbaay loo réer bi mais, en tout cas, j'aimerais, juste encore remercier mhm. euh, ils sont tellement fidèles du premier du Sénégal. C'est-à-dire, en plus du côté groupe, euh, 19.4, à Paris, euh, de Ils sont aussi euh, Instagram, tout ce qui

waaw d'accord Pape Cheikh xam nga tay nak day dafa tombé euh, fans club bu King FM ñom ñëpp ñu déplacé wu ñëw ci studio bi sét si ñu man leen Pape Cheikh nak dafa dem France pour euh, dundaloo leen li nga xamantene mom moy cette soirée comme ça ñom bu ñibé ñibbee seen kër tay ñu xamné vraiment lu leen mënti wax dëgg la Fi amul ndaxee mbaay Ñom nak ñu ngi ci studio bi tak seen casque ñu ngi lay dégg en direct actuellement muy fans club bi ñom ñëpp studio bi mi ngi fees dell euh, di xaar nak tay guddigi né vraiment ñom mm-hmm. actuellement ko ci gis ci ñoom ndeysaan mi ngi kontaan. ma bàyyi leen rek nga nuyoo ñoom dañoo baax xam nga xam nga excité excité bi mu ubbee bi mu ubbee ak léegi c'est vrai que c'est vrai que yàgg euh, mais euh, ak de euh, club mënuñu leen di maa ngi leen di lu ñu nekk leen di bu baax seen auditeurs yi nekk je suis je suis content ready bi kontaan na voilà merci donc Pape à tout à l'heure jërëjëf. à tout à l'heure voilà voilà donc euh, mon nekkoon euh, papier euh, depuis depuis Paris donc gis tu ko ci guddi gi tey nag defe ne bu 20 heures jotee balaa sax laata boobu danañ def lépp bo ni def pour ngeen mëna am touti déjà ci répétition bi dañu ko def dañu jëm duggal aussi ñi nga xamanté ñoo fa nekk aussi artistes yi naam les guests donc gis ngeen ko ah, Noir dugg momi dafa fas rek di def le tapis rouge lima ma neex ci la Paris du saf dung tay lay pari di saf beaucoup de plus encore bobu waaw bu ne la pari télé def def la pari di ah d'accord dafa waaw ñu ne la di kay ah, waaw parce que bu ndaw bi la. waaw bu kay. wala xel oh c'est mon ami c'est mon ami <laughs> président ñu lay nuyu. <laughs> ñu plaisir. ah ok. Euh, ñu ngi delloo ñu bi XLX. Euh, boo takku sa kask nag kaay de doo wax de day mbiip mbiip. foog nga bës ko xoolal fii ngay bës mu oh. wàcc. nga ah, tëj ko waaw da nga koy tëj mu wàcc. wàcc bees lañ si tëjal nañ ko voilà. léegi waxal nga xool. <laughs> waaw c'est bon léegi zéro faute gis nga. waaw ok nice. <laughs> voilà léegi dama dalal ko ne ko le Messi. boo ah, ma dalee yow ah. <laughs> ya ya ya. man daal yi man moo ma neex man. billaay wallaay. voilà légui noo gisee euh, ne na touti bi ah, aussi ma bàyyi la nga wax euh, par rapport ak seen projet yi gaay doon wax fi sànq. Ah. intéressé na ma. Euh, ak li xew demain. kon dal bismillah rahman rahim mhm. amna ah, solo. <laughs> waaw gannaaw bañ santé yalla julli si yonent bi. Mhm. ñi ngi nuyu ñi ñuy déglu ñëpp. Mhm. di nuyu waa groupe King Family. ñi nga xam ni teew nañ ak ñu teewuñ. ñoo xam ni dañoo am imprévu si diggante bi. bon nii sax la mën a demee parce que ñëpp bu ñu ñëwoon macha allah gëm naa duñ xaj fii. dëgg la ah, loolu am na euh, il fallait ñu sélectionner quelque. pour ñu mhm. ñëw représenter ñeneen ñi. Mhm. et bon muy ñu nekk si extérieur. Mhm. wala national bi macha allah ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak si santam. Euh, gannaaw loolu. ñu ngi lay nuyu yéen ñu ngi fi fekk. Euh, ñoo ngi leen di fay. de toute façon kontaan nañ si yéen bu baax a baax. ndax déjà ni ngeen ñu dalalee. franchement loolu xol sedd na si quoi. jërëjëf euh, bég nañ si bu baax. Uh-huh. di bég si rajo bi aussi ah. <laughs> waaw seen nenn tuuti bi. Euh, ndax euh, boo gisee ñi taxaw fii yëpp. Mm-hmm. rajo bee ko waral quoi. dëgg la parce mm-hmm. ñëpp à travers rajo bi. Mm-hmm. si lañ xamante. te rëccuwuñ. aussi lu ñu xamante si rajo bi. waa ca ca ah yaa ngi wax waaw. rëccuwuñ xamante si rajo bi. waaw ndax macha allah. à travers Radio, bi. Mhm. à travers page Facebook bi. Mhm. Euh, xamante nañ ci def nañ ci benn connaissance. ba ñu mhm. ubbi benn groupe. ñu ubbi groupe bi. gars yi macha allah ku nekk naa ajouté ñu bon a gis xam ngeen ambitieux et que ñi nga xam nous ku leen xool déglu xam ne yi dara si kontaan nañ si euh, rajo bi euh, te groupe aussi bon je pense instant bi maa ngi wax si groupe bi ak yooyu noonu. Mhm. waaw waaw ba ñu def nañ première rencontre. Mhm. je pense déggoon nañ ko c' était le 26 euh, mars. Hein. Mhm. waaw waaw ñu dem ñu toog ku nekk ñu laaj la dañoo yaakaaroon ne ay euh, booy fala fala ay affaires yi nii la mais ba ñu laajte ku nekk ak sa objectif. franchement ñu idée yu ñu joxe yi. waaw oh, franchement permettre nañu ñu xam euh, bon si lañ xam ne macha allah. Mhm. kon li dal du groupe ay euh, tàccoog ñu xuni rek. Mhm. bon permettre nañu ñu xam ne li ay idée la. Mhm. ay euh, objectifs yo xamanteni ni macha allah yu japp suñu développement wu dëkk la. dëgg la ba ñu tax ñu né kon li du lu ñuy à travers King FM. créé nañ King Family. dëgg la à travers King Family. war nañu japp ci développement wu suñu dëkk. Ah, absolument Sénégal ma nga xam ni chaque population. Mm-hmm. population bi képp ku nekk Sénégal. Mm-hmm. di nga gis seen bopp si ni activité. ak si ni mm-hmm. yëngu ak si ni projet. absolument bon est-ce qu'il y a un maa non mais je confirme parce que aussi li me suivre seen débat ci WhatsApp bi. je me dis waaw ni nekk tey euh, nekkuñu fi tàccu rek di daan ñaan dédicace quoi. <laughs> effectivement euh, waaw man nak euh, defe naa ne li ma bëggone wax ak prési man nak ko waaw waaw euh, président en fait li ma bëggoon moom mooy euh, au delà c'est vrai euh, bo booloo ngeen yéen ñëpp yéen a ngi yaatal yi def seen activité mhm. mais man benn rek laa bëgg a xam mooy fii ku ma fi gis am na bon sama gars yi sama gars yi ràgg nañ de copain seen match bi at yii da ngeen di xaru at ñun da ngeen bëgg a xaru match gars yi taxawuñ de copain ñi amuñ fii foofu fi jaaree. wax la seen ràgg bi bon pour xamal la ne du ay booy macha allah du ay booy taxawaalu affaire yi. Hmm. comme ñi nga fi gis ñëpp ñu a ah, jàng moo leen sonal. jàng leen sonal macha allah ñii ñi ngi cité ñii bon. Euh, di félicité waale Adams le boss moom moo taxaw nii. Hmm. parce que bërki démb ah. hmm. si la doon recevoir diplôme licence sur commerce international. Adam Sarr partagé naa ko sama whatsapp uh-huh. <laughs> na si morom waaw uh-huh. bëri euh, na ñi nga gis ñëpp ñii dañuy di dóoraale waar eh. parce que toogu ñu di xaar kenn si lenn uh-huh. ñeneen ñi macha allah ñi ngi seen euh, bërëbu liggéeyukaay bon ñi nga gis ñi sax samedi dañoo a bëri dañuy tëj seen i parce que dañ ko li ki nga xam moo leen ko jaral. moo tax ñu tëj kii euh, franchement ñu foofu ñu def teew. Euh, macha allah pour euh, li nga wax ex nee bon. gis naa fi euh, sant Seck macha allah dugal nga benn tof gars yi daan non dafa sew def nii mais wax naa leen ne ah jaan daal daal sew na mais dangar gaa ngi ci biir <laughs> ah. yi non def attention quoi. waaw mais mais mais euh, ndeysaan bi ngeen booloo. Mhm. actuellement euh, gis nu yan activité moo am ci biir actuellement yoo xamante ne ay projet la yoo mhm. xamante ne yéen a ngi koy yéen a ngi koy nas.

Euh, quartier général. Mhm. bon euh, quartier libre boo mën a quartier général. ku nekk wax sa xalaat. <laughs> waaw ku nekk di déggee affaire yooyu noonu. waaw instant day am parti lépp aussi je crois. c'est ça lépp am na lépp am na olof am na lii ak ah. euh, mhm. ba pare nag. Mhm. si toog nag ñu ne léegi na projet yi génn. waaw waaw projet yi macha allah. projet yi ñu am. bu ko liggéeyal suñu dëkk. macha allah bari nañ. Mm-hmm. waaw te fii si kanam incha allah. Mm-hmm. Euh, xam naa di ngeen si xam dara. incha allah si xam dara incha allah. parce que mais pour xamal la ne rek. Mm-hmm. Euh, booloo wuñ nii pour di euh, kii nii rek. projet yaa ngi fi. waaw. moo tax bon doo gisee sax bëgg nañoo daje comme ni ko directeur Ibrahima kii Dieng. Dieng waxee waaw. waaw tout ñu ngi yàqamti moment boobu. franchement yàqamti nañ ko parce que bokk na si lu ñu tax am patience tuuti pour ñu bañ pour ñu tàmbali si euh, projet bi. Hmm, absolument dañuy xaar rek. ñu dalal ñu ñu tegal leen projet bi. d'accord waaw tégal leen lépp te machallah inshallah bu leen ko tégalé nañ xamné hmm. euh bon projet yi dal si ay euh expert la jógee quoi. waaw waru ñoo parce que daal man du lu may bett man non <laughs> bon aperçu <laughs> voilà c'est ça <laughs> euh, je pense que euh, parce que aussi gars yi euh, hmm. envie de sen hmm. bon pour kontaan naa si ñoom daal. Mhm. idée yi ñuy joxe macha allah. macha allah te incha allah daal xam naa daal euh, ex daal. li nekk ci kanam raw li bët. daal ko daneen kuy euh, kuy yodd sa kët. dëgg la <laughs> alors euh, pour bokk léegi membre si ci groupe bi naka lay def est-ce que am na numéro téléphone boo leen mën a joxe en direct comme ça ñun nit à chaque fois ñu koy joxe en direct. Mm. comme ça nit ñi tamit di mën a am accès pour di mën a bokk di fekk si yëf yi gën a yaatu ne am na ñu ne ci àll bi région yi. Mhm bitim réew bëgg a bokk. effectivement mm-hmm. bon loolu pour xamal ba ma bi passé ba may joxe sama numéro téléphone. waaw macha allah j'ai reçu pas mal d' appels. si loolu. ndeysaan may intérêt si loolu. Mm-hmm. bon dugal naa ñu bëri mais. Mm-hmm. de toute façon euh, si condition yi rek ku si nangoo jaar rek. parce que ñu dugal la euh, waaw ku si nangoo jaar ñu dugal la te dugal nañ ñu bëri sax. waaw ñeneen ñi tamit seen yónnee nañ leen euh, damay joxe sama numéro. ku ma jël ma jël la PV wax la lan la bureau bi doxee. ok du dee mën ngaa. jaar adhéré waaw ci yoon boobu wala amul benn problème. ñu moom ubbil nañ si suñu buntu ñëpp. képp ku daal bëggal taxaw si. numéro bi ñaata la. bon mun ngeen jël 77 bi sama numéro la moom. 77 143. 143. 94. 94. 74. 74 77 143. 94 74 voilà am WhatsApp am Je voilà je pense pour euh, yenn ñi nga peut être seen crédit xamna suis ay ndio suis Ya ngi Je de WhatsApp. len suis connexion mën nañ message message rek ma tontu leen amul WhatsApp. wax leen lepp lu ñu voilà en tout cas merci gars yi jërëjëf nañu lool. Mm-hmm ah. Mhm. léegi nag comme li ñuy wax nak tay yenu laaj Pape Diouf ah gis ngeen ko de Pape Cheikh dem na. Mhm. waaw waaw ñëpp nga fa équipe yëpp ngi fofu mhm. ah donc euh, rajo bi lépp loo xamante ne dégg nako ay auditeurum tay manam euh, diko diko diko diko ñaxtu. manam pour pour def ko pour am ko pour diko dégg bu len ne vous en faites pas dañ ci taxaw automatiquement. tay lu guddi gu guddi gu guddi guddi gi tey sori sori ñu taxaw gis ngeen fi ma taxaw ni duma ñu amul ñibbi de.

ku dem non seulement ding ko sétane concert bi en direct. Mm-hmm. ding ko gis. Mm-hmm. di am snap en direct. Mm-hmm. c'est pareil pare euh, di nga aussi King FM en direct. donc site bi moo officiel page Facebook bi c'est vrai de temps en temps euh, dañuy ibbi et tout ça moi euh, dañ koy ibbi pour ñëpp mën ci jot aussi mhm. mais site bi moom mooy priorité mhm. parce que Fofu, mon antenne lépp mhm. Facebook antenne lépp day ndaw wow mais donc site bi www.kingfm.sn, point j'appelle fm point sn fa dem jàppal ne euh, di nga mën am plateforme yëpp di nga image yëpp photo les ak ak replay yi parce que replay il faut que koy en direct ku c'est en émission il faut quand même en direct yëpp ci site bi moom 3w hein. mhm. waaw People actualité People yi exactement yéen yéen xam ngeen yéen façon xam ngeen xanaa dañ leen di xamal rek ne leen kon dañuy wutalik euh, page bi euh site bi voilà muy euh, voilà bon je pense gars yi xam nañ ko ba pare sax voilà ñu yok rek pour que gars exactement rendez-vous fofu la quoi <laughs> voilà image jeex na <laughs> exactement sinon daal euh, bu dee pare nañ si ma. def daal ma nga def moom. waaw juste que rek euh, pour ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy déglu te bëgg nañoo dugg si. Euh, partie groupe bi groupe bi waaw. am nañ opportunité pour demee incha allah. le 21 mm-hmm. si mm-hmm. plage BCAO mm-hmm. plage BCEAO képp ku ñëw si tata 69 bi. dem am ngeen demee ah. Demain, Inch'Allah, troisième rencontre. Troisième rencontre aussi. Ok, troisième rencontre. Plage BCAO. Plage BCAO. Ok. Waaw dina amaale match de foot. match de foot waaw dina amaale lépp mais match toujours objectif bi mooy. Mhm. jéem a carte de membre yi ak ñi nga xamoon aussi réservé nañ seen carte de membre. Mhm. franchement ñu ñëw bu ñu ñëwee fa mën ko récupérer. Mhm. ok mais lep, à partir de 14h parce que nous nar a football. te foofu xam ngeen amul ay lampe. déedéet amul lamp de. kon nag <laughs> faw gars yi nañ teel a ñëw. faw ku ñuy dégg na nga teel a ñëw. voilà waaw wala sinon bu jëlee sama numéro laaj ma question ma jox incha allah information bu mat sëkk. voilà mhm. waaw naa ne numéro bi. bi naa ko bamtuwaat 77 143 94 74. bu weesoo loolu daal euh, ñu ngi remercier ñëpp. Mhm. Euh, di si waat ñu fi teew ñi. Mhm. Ah, franchement ak chargé de communication yi gars yi macha allah ñi nga gis ñëpp c' est c' bokk nañ si membre du bureau bi. waaw euh, di remercier aussi ñu nekk extérieur. waaw lu ñu naan picc nga sa kaw mais xel maa ngi si suuf. kon daal ñu leen nuyu ñoom ñëpp. Mm. Mbaye Babacar Mansour mm. Ndiaye Zo. Mm. Ah, El Hadj El Hadj. doomu ndeyam. Ah, ak ñeneen ñi nga xam ni peut-être euh, El Capo gars yi. bu dee ñu ngi dégg waaw de toute façon. di nuyu aussi ñi nga xam ni teewuñu ñoom Tamsir El Dam ñu woote woon sànq. waaw ñu baña lim daal. comme ça parce que macha allah bu ñu limee rek euh, day xaw a kii. bu weesoo loolu. nga baal ma rek ma ñu remercier suñu partenaire bi nga xam ni. Euh, non c'est pas l'excellence bëgg ngeen excellence trop quoi. <laughs> excellence dal dafa lépp du excellence de. dafa may may may <laughs> bëgg ngeen excellence trop. waaw dañuy euh, kii euh, dañuy euh, remercier kii Mohamed Diop nga xam ni gis nga carte membre dañuy yaañ yaañ si groupe bi la bokk mais pour wax la ne xale yi macha allah dañoo am expérience dañoo dañuy. dañoo takk takk si lu ñuy def. moo mhm. créé lii yëpp. waaw mu rafetee nii waaw. kii bi jox ko benn jox ko benn. waaw mu leer ko waaw waala nu muy nekk noonu voilà. moo créé logo bi. waaw logo King Family bi. lépp moo ko rafet te nag. Euh, ex ah c'est très beau waaw ex. carte euh, euh, de yi du comoré. xam nga xam naa loolu xam nga fan lay jugee. Ah. si dëkk bu sell ba lay jugee. déedéet kay waaw kii dañ koy dañ koy jëlal otoog yëpp pour muy ñëw ah. macha allah xam naa prochainement yu war a ñëwaat yeneen commande yi ñu si yoon xam naa avion lañ ko war a jëlal. macha allah parce que day jaar dëkk bu sell ba Touba. Touba ñu.

Inshallah. Ah? Ah, après l'émission l' ah, <laughs> encore merci beaucoup encore. voilà <laughs> merci. beaucoup le allez donc je euh, est-ce que elle tient nag eh, média mbi café wu ko ma générique C'est générique. <laughs> voilà donc nga gis pris euh, ñoo ni euh, donc euh, président club donc.